magie moo leen di may kooru biddew amour li mu sol baax na waaw jàpp na la sax de ah. yow moom yàgg meer yéen yam da ngeen bëgg aar waaye dem ok bonne journée. pareillement. yaay pare naa dañu dem. toog ba góor ñu jëkk laa pare man de li jaaxal na ma. faal eh kon kii day nelaw yow doo jóg màgget dooy jóge ba Genève woo ñu duñ jóg bi muy jóg yaay maa ngi nii damaa dematul léegi dematuma sama bopp bi day metti sama biir bi sama yëppay metti dangay dem danga xam lu mu lay doy doo jóg yaay li mu lay jox jox la ko léegi na ma ko jox na la ko jox nga indi ma ko man de xam nga ne màgget tubaab la dalay jox sa bos jox ma sama bos jox maas bosam yow moom damay forcé waat te jëkk sax boo mu doon jeex maa maa ko yàq nag naa ko supporté rek yaa eh, ngi léegi da ngaa ñeme dem de comme autoroute à péage. waaw ñëwul boo sonnee ma boot la bu ko jaree. Maguette Ndoye moom moo ñu woo ma boot la ñu dem. wéeru ma wéeru ma nit ñi ko jógee sa ah. ba a dama lay si loo mën nga ma andil marchandise yi waaw ok d'accord maa lay xaar dégg nga ok ciao à ci loo ne. ça va maa ngi nii rek ci jàmm. waaw ça va bien. toogal. nañu gisee. gis nañu gisee kay. naka mu ne. moom danga jonga ma de ku lay toppatoo. naa la. bàyyi Modou moom loxoom dafa set car macha lii cuub la. déedéet du cub jeesneer la. Hmm. moom daal jeesneer unique lay jël daal di koy imprimer nii moom rek moo yor machine bi di ko defar. car machine waaw nii daal la defanteeg yow lu baax. Hmm. ma chérie la. du dara du dara yàlla ba du dara ça va. Hmm. est naa utiliser cette toile s'il waaw. demal ma. non foofu noonu sax daa mel daa am ku fa nekk dawal bi am na douche foofu. merci ma chérie. très avance baax na merci beaucoup. moo ko bokk waaw dëgg la yóbbu bi lii laay def. ah dafa mel ni yaa ngi si biir waay. waaw gis nga waaw d'accord merci waay. merci waay kontaan naa trop. tëdd yaay dama tayal yaay sam bopp day metti ndeke dan lii la liggéey dan lii la def. daan sama yaay day këfër. na ma takk na ma takk fekk na ëmbal na la ba pare. test de grossesse. yaa ko moom la mooy. yàlla xam naa lii de laa fekk ci toilette bi. test de grossesse. waaw. te yéen am ngeen seen toilette sama toilette laa ko fekk. Ah. maax moom rek fay dugg. douche bi yow yaa ci dugg yow sama yaay. maas looy. jamais dafa dugg. ko xalaatuma ko sax. jéem man guné la lu ma dal. jéem man boo xoolee xam ne moom dese nay ndoxu bët kee deseetul ndoxu bët. ma rëbb fu la sama ne. la demal. sama yaay dan moom def na li muy def ba pare xam nga ne dan moom daan na ma. li ma yaakaaroon yëpp ko ci yow nga def ma nii. sama yaay mu ngi insé. yaakaar naa ngi ko ay man diimaa. ay faama yow yaa ma. yow ndax yow dëkk bi di mbelaleel di wax rek mel rajo bu yàqu nii yow li ngay indi si kër monument la renaissance doom di ngay nuróo sa ñuuraay bi na nga génn ci ma nga daal da ngaa ëmb sa ko dama xool bi dee ndax moo nekk di fi man sama yaay wax ngeen dëgg doo laaj ba pare da nga xam ci caaxaan da ëmb de ana ëmb ñii ngeen di def ku ne di ma tuumaal ëmb di ma tuumaal ëmb booba tey biir bu yàqu sëy naa ba tas ma ko fu ma toll rek man xuma man lu mu nuru ci man lu tax may jiñ ëmb sax man damay neewi di res wala laa seen bidéew dina gën a nes nes seen safal magie si cafka bi ngeen ko mës a xamee ak mbubam bu bees Mama, maay reer faama. biddéew suur naa suur naa. biddéew. Hmm. doo ubbi lii du tol du màdd du daqaar ñambaan yu saf yooyu suñ koy woo mu ñëw yooyu la soxal fi ñu toll nii. est-ce que faama la yaay. sama toilette privé la man ak moom rek a ciy dem keneen demu ci ku ciy dugg keneen. chérie sama toilette yaay kenn du dugg. Hmm. yow doo fa dugg Germaine du fa dugg. kan loolu kanam fa dugg yaay sànq dafa amoon kenn ku jigéen ku fi ñëwoon dafa soxla woon kii toilette yi hmm? ma yebal ko sa toilette parce que beneen toilette bi Germaine dafa nekkoon doon raxas douche. sama toilette lu tax yebaloo ko feneen. lii moo tax bu may dem dama war a génn euh, yóbbaale sama caabi tëj sama néeg yuuxu nag dina jub fuñ ko foogewul. Mm-hmm. Eh, waa Roguin. añaaja rek añaaja undi. Mm, baax na ci kaw la jëm de. bu leen bàyyi alaa accu amul seral pour man rek. <laughs> lu ma ah, waay mu sa wax te defuma ko biddaay wallaay da nga koy gis. lu leer laa leen wax am na ñoo xam kenn du leen laal nag du ñëpp ngay laal mu jig leen maa yow sama di ñemee yow maa sama yaay su ma xamul yow xam nga ma. yow xam nga lu ma capable lu nekk lan ma mën a waxal ba mu def jox ci lu ñàkk fay yow nag noppi yow noppi yow yaa war a noppi yéen du ngeen reer maay reer ba suur bi del jërëjëf yow moom del njëkk a wax del njëkk a wax bul mujjee wax ñee war a mujjee wax te njëkk a noppi di ma jëñ ëmb bi kooku jigéen waa jigéen la dégg nga lool <laughs> yàlla mën a seetal ay man li li ma yanu woon waxal ma lu ma deful jàmm paaka ma gaa gaañoo ma ko gën a dis quelque chose. Bidew yow tooñ nga ma. du ku ñëw rek war kaa dugal sama toilette. dafa am wax la. ah ndeysaan ndeysaan xam naa dañ koo trompé <laughs> ah. Hmm. moo leen doon may kooru Bidew.